asalaamaaleykum mbokki internet yu wasaare célébrité dal leen ak jàmm et bienvenue dans votre rubrique K sur le plat comme d'habitude K yëpp luy Devant dafa nekk sur le plat ngeen tànn si bu voulez neex fu mu Ousmane Sogo »,« Macky Sénégalais yi moo ngi lëmbee dëkk bi fu mu Ken nii kenn ken noo yendoo kenn xamul nooy ay lacrymogène ay et cetera waaye si ngi loolu yëpp kii di Wally Ballago Seck démb dafa publier si Instagram xam ngeen ni temps yi la demoon fële si Italie daal di koy def na mel ni doom dégg fa soirée bu exceptionnel kenn dootu ko warante soirée guichet fermé italien yëpp kontaan Sénégal yi fa nekk ñëpp tamit kontaan bu baax a baax waaye bu Wally ñib see daal di publier benn si Instagram maanaam résumé soirée bi yëpp di si waa Italie di wax ñoom contentement bi nga xam ne nii am na ko waaye heure bu ko defee wala mois bu ko defee moo naqari yenn sénégal yu bare bare ba daanaka dafa publier maanaam vidéo boobu rek di rek di récapituler rek récapituler euh, événement yi fi am yooyu yëpp waaye ay saaga yu ñaaw ak ay maanaam kàddu yu xam ne naqari na trop trop trop trop boobu mooy tuul kii di Wally Seck je crois bien que je sais pas est-ce que nekk liir ou pas parce que je ne crois pas que ni kii di Wally Seck mooy gère page yëpp waaye en tout cas ñenn si Sénégalais yi rafetlu wuñ Wally Seck publication boobu mu def si maanaam page Instagram moom daal di koy publier di remercier ñii di waa Italie parce que jàpp na nii du moment boobule la Wally Seck waroon publier vidéo boobule. ñii tamit bu ñuy bañee ñii nangu nañ ñii jàpp nañ ni peut-être euh, Wally Seck liggéeyam lay def. waaye ñeneen jàpp nañ ni en tant que wali célébrité en tant que wali porte de voix en tant que wali Sénégalais bëgg ko à chaque fois bu génne ñu koy supporter wala bu nekké Sénégal ñu koy supporter donc Sénégal buy dund ci yenn situation yi du moom moo war a publier yenn vidéo yi gis-gis si wuté lool à qui la faute est-ce que Wally Seck woon publier vidéo bi wala est-ce que c'était le moment pour nous publier vidéo bi wala bàyyiwu si xel on sait pas en tout cas ak lu si mënti doon mooy ñii gis jàpp nañu lu rafet la ñii jàpp nañu lu rafetul la baa ku nekk ak sa affaire mais su doon man la dinaa xoolaat bu baax a baax ban moment lay publier yenn vidéo yi parce que tamit am na ñi nga xam ne nii bëgg nañu Wally Seck loolu lool lool lool lool te it ñoo ngi fu mu toll nii ñoo ngi dund situation yoo xam ne neexu lañ parce que jàpp nañ ni ni ñuy def Ousmane Sonko waruñu ko def am na ñeneen ñi nga xam ne tamit jàpp nañ ni Wally Seck yoonam nekk si donc am na droit partage vidéo bi. on sait pas en tout cas lu si mënti doon daal mooy sénégalais yi euh, ñu ngi koy critiquer bu baax a baax si yenn si si si réseaux sociaux yi moo xam Instagram moo xam Facebook moo xam Snapchat ku nekk daal ñu euh, ko gisee yaa ngi ko fay waxee noonu en tout cas pour ak waxoon ko sànq ak exemple si français yi gis xam ne benn nit bu deewee rek ngay gis célébrité yi wala influenceur yëpp commencé di génn di ko alors que rawatina fu mu toll nii xam ne waaw demaguñ fenn waaye trois personnes ñàkk nañ seen bakkan si manifestation yi xam ne donc c'était pas le moment ak kii di Wally Seck di vidéo mbokk internet yi wasaare loon seen rubrique car sur le plat comme d'habitude car yëpp lay jël dafa leen ko sur le plat ngeen si bu avec votre frère ciao merci beaucoup